di leen expliquer présenter sama bopp nii ne man la yaay jaan dama bëgg a ñëw du xool pour lan la bu dee loolu la ñun mën nañ ko génne parce que ñun loolu mooy suñu liggéey léegi nag ñu ni ma kenn xamul jaan la kenn xamul lu mu doon man leen léegi ni moom nañ ma may man ma dem déglu oh, su ma demee ba foofu man dinaa xam ndax jaan la wala du jaan parce que sama nijaay bi fi jógee ci loolu rek wan naa la samay vidéo non ak fi ñuy jàppee tout waaw su ma demee ba ba egg man dinaa xam ndax lii jaan la wala déet te aussi gëm naa ni jaan la parce que sama nijaay bi fi jógee nee na ma li jaan la bu nekkee jaan la ñun nañ ñu defal sécurité toog ñun mën nañoo dugg ba ci biir utal ñu yoon boo xam dina dugg ñun ñu jet dugg ci biir génne ko ci kàttanu yàlla. léegi yow sa ndijaay boobu noonu. lu tax proposé wu woon proposé na leen ko mais dañ ne ko dinañ ko woo tey moom moo ma moom moo ma jox autorisation pour ma ñëw. waaw woo na leen dem na ba gisanteeg imam bi moom la ma doon wax léegi ne ma boo gisee imam bi ne ko sama nijaay Fallou moo ma booleeg yow. dem naa fa dem naa ci policiers yi nekk fii pour expliquer leen présenter sama bopp ni leen dama bëgg a dugg pour xool mais mais mais nanguwuñ ma dugg waaw nanguwuñ ma dugg nee nañ ma parce que xamaguñu lan la moo tax xamaguñu jaan la xamaguñu lan la loolu tamit dëgg la effectivement dëgg la mais man tamit ñu bàyyi ma man ma dugg man tamit mën a dégg kii boobu parce que xamee naa riiru jaan bu nekk loolu mooy yoon parce que liggéey bi pour ñëpp laa ah, lii nii nekkul dëgg la nag ñoom dañ leen di jox cër jox leen respect parce que ñoom ci seen liggéey lañ nekk waaye ñun tamit dañoo bëgg lépp rek yang ngi ma am am nu mu demee ndax ñun walu serpent ci bopam ñun suñu suñu dawan la lool motax suma duggé dina xam ban jaan la parce que lool moy sama liggéey ñoo ngi dëkk si kees cité Senghor ci poste bi poste Kona bi fofu lañ dëkke mais man ma fété fi ci Dakar nek fi cité Amo 2 motax ma ñew parce que mënu maa seetaan loo ni day day day lor nit ñi ta man yalla may ma xam-xam bobu nonu may tok lool motax ma paas sama pour ñew xol ñun dégg ñun ñuy génn ay yew yow xanaa moo gën a moo gën a yomb sax ci ñun ndax kuy dem bay bay jàpp ay vipère di jàpp ay cobra ay mamba noir kooku yow du la jaaxal vraiment nañ waxante dëgg bu dee ñi xam jaan dañ koy jat ba pare dugg ci biir ndax ñu am nañ suñuy bagage bopp yoo xamante ni moom la ñuy utiliser dugg ndax jaan dafa bëri façon moo tax am na loo xam ne dañ ciy boole ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko xam jafa am jaan yoo xam ne sax doonul jaanu kese day rax te yàlla may nañu xam-xam boobu bu dee loolu la ñun buñ ko jàppee nañ ko xam ñun buñ ko génne woon sax du ñu bàyyi génn du ko yóbbu dañ koy téye saytu ba xam jaan jooju jaan ñun lan la ba pare waaw mu ngi noonu pare nañ pour génne ko bu ñu d'accord ak ñun pare nañ pour génne ko ci kàttanu yàlla